man moom euh, comme li ma ko waxee man scientifique laa euh, nekkuma fi pour rassurer qui que ce soit damay wax affaire scientifique euh, sur le plan scientifique gisuñ lenn tey jii nii lu ñuy wan ne wàllante bi dina wàññeeku parce que nit ñi ñu ngi continuer di def li ñu daan def li ñu leen di forcer la ñu ñàkk def rek mais nit ñi ñu ngi continuer di def li ñu daan def donc wàllante bi <laughs> un plus un égal deux loolu laay wax man depuis novembre bi may alerter wax ne feebar bi bu ñu continuer di def am comportement yi dina euh, dina gën a gën a jéggi dayo bu ñu continuer encore dina gën a jéggi dayo donc bu ñu nax suñu bopp euh, dans tous les cas su fekkee ne nit ñi ñu ngi continuer di comporter woon nii di am euh, di regrouper nit ñu regrouper en même temps di di di sofantel feebar bi bañ a sol masque day yokk buy yokk nag ñi ci gën a am problème mooy ñiy ëllëg dem réanimation wala ñi nga xam ne euh, feebar bi daf leen di moom donc loolu yëpp dafay loo xam ne euh, on ne rassurer personne su fekkee ne dañu continuer def li ñu daan def li doon xew rek mooy xew dafay gën a yokk maintenant couvre-feu moom lu baax la parce que couvre-feu comme j'ai dit euh, heure boo wàññi rek ci li nga xam ne nit ñi dañu saafonte nekk ensemble baax na ci fekk ne période mbas la su dee couvre-feu bi dañ koy yokk pendant un mois tant mieux Euh, mais euh, amul aujourd'hui benn garantie ne lépp dina dem su fekkee ne nit ñi ñu ngi continuer comporté wu nit ñi tàmm comporté wu